ndax ndaxte mobilisation bi ñu def kontaan nañ ci trop waa Sine Thiéré Sathie ñoom ñëpp ñu ngi taxaw teew ndax affaire bi ci ñun ñëpp la dal dalul ci kenn ñun ñëpp la dal ndax lotissement bi lotissement Sine Thiéré Sathie ñoo ngi ko def le vingt euh, ñoo ngi Sine Thiéré Sathie le vingt et douze mois soixante dix kilo lañ Sine Thiéré Sine Thiéré Sathie boo boo fi mu ne léegi nag li gën a bari ci Sine Thiéré Sathie jël nañ ko yëpp yóbbu nañ ko léegi nag ñun fan la dem te nee nañu gars yi nee nañu duñu fay loolu loolu loolu ci fan fan lañ ko wekk fan lañ ko wekk Macky salla jaaral fi Abdou Abdoulaye Wade jaar bi APA bi ñëwee def ko dele na fee ba seen xol sedd état nag continuité la loolu lañ wax nun nag ñëwuñu pour wax lu bon dañoo ñëw pour wax lu baax ñu préfet na woote nit ñi toog waxtaan ak ñoom ñu trouver solution ñun ñëpp ay magum jëmm lañu ay kilifa lañu nañu fay famille bi famille bii mooy seen mooy mooy mooy seen patron kon nag Macky Sall ñu ngi lay ñu ngi la koy yëgal yow yëg nga fii dem Burkina Faso pour régler ay problème ñëwal régler problème mu Thiès loolu lañu soxla balaa nga balaa ngaa fii nga régler ci yeneen ci yeneen réew ñëwal ci ñëwal Sénégal nga régler ko ba pare nga soog a dem loolu la ñu soxla loolu la ñu tox soxla tey lool lañu ñu soxla tuba loolu la ñu soxla tey soxla tuba suñu lotissement Sine Thioro Sarr ñoo ngi ko ñoo ngi ko lotissé le 9 le 9 décembre. 9 9 9 9 décembre 2000 2000 9 décembre 2000 ci lañ lotissement ñu ngi ñu ngi commencé lotissement bi ci numéro 1 wàccee numéro 56. benn bu ne na ngeen ko vérifié ci li may wax bu fekkee du dégg numéro 1 angle la numéro 56 angle te am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci ay autorité ñu ngi nekk ci biir seen ci yarataajo jël nañu seen i terrain te ay kilifa lañu liñ leen professé ci pays xam nga loolu jaaduwul nañ ko contrôler bu baax président Macky Sall ñu ngi lay woo préfet ñu ngi lay woo nanga nga ñëw régler lii gouverneur mi nga xam ne moom mooy yilif région bi muy sama turandoo Amadou si Amadou si mooy fii mooy nekk fii moo nekk foofu Macky Sall yaay quatrième président man maay quatrième chef de village Sinthiara Sadio kon nag yéen ci seen bopp nañu ñëw régler loolu ci saasi nañu ñëw régler loolu ci saasi presse waa presse bi maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax imaam. imaam alxaaj Malick Guèye ca Kër samba Guèye maa leen di nuyu. li nekk sama tànk mooy bëgg jàmm bëgg salaam di ko dox maa ngi ñii ma àndal booba ba léegi yàlla dafa dogal nu am sunu alal autoroute bi bëccee jaar jëm Touba autoroute bi jëm Touba nag d'accord nañu ci neex nañu li nu neexul nag mooy ñi ci jaarale ñi ko fi jaaralee ñu gaañ nu loolu moo nu neexul loolu moo nu naqari ba tax ñu ñëw fii waaye d'accord nañu ci autoroute bi jàll kontaan nu ci ndax dëkk ba mu jëm dëkk bu tedd la réew mépp ko bokk waaye dañoo bëgg ñi fi jaarale yoon wi nañu nu fay sunu àq dañu fekk ak su sunuy tool fekk na ak sunuy garab fekk na itam ak itam ñoo xam dañoo tabax ak ñoo xam ne bii ni di nga am def nañu peen loolu nag lañ bëgg nag ñoo domaase ko te itam parcelles yi ñuy wax bi ko bi ko lotissé tampon yu wóor la ci dóor commune rurale bu Fandène moo ko lotissé dóor ci tampon yu wóor sous préfet bi signé président bu communauté bi signé mu ñaar tampon yu leer nañ ñoom la jël nañ seen wàll ba jaay ko lekk bañu ñu lotissé pare ñoom seen wàll jaay ko lekk na loola di walaabale sunu las di bañ a walaabal dañoo séddoo ñoom seen wàll nee nañu walaabal na ba ko ba lekk nañu ko seen na muy walaabale sunu sunu wàll di bañ a di bañ bu silmaale wéree bañ jaay ko lekk soon wàll nañ ko bàyyi ak noonu nu jaay ko lekk ko wala nu dëkk ci noonu noonu sax noonu waxuñu jaay lekk waaye nañ nu bàyyi sunu wàll noonu neex nu def ko na ndax ñoom def nañ seen wàll ca nam leen neexee ginnaaw bi loolu jàllee li li ñu leen di xamal moo di xeexunu xuloowunu lëkkunu pënu baariwuñu ab tali danoo bëgg yiw bëgg aw ci njub ba am li nu bëgg loolu tam lañu bëgg tam gouvernement bi mu fekk sunu ci te Macky Sall ci jëm boppam ñi ko jàppale ba mu toog man mi ca laa bokk te Abdoulaye Wade mi fi jóge woon te Abdoulaye Wade mi fi jóge woon autoroute bi mu tombeel def na ca loo ne bi ne gàcce ngaalaama fay seen bopp seen fay seen borom ba seen xol seddu guy waay waay Macky waay waay Macky nun ñi fi jël Abdoulaye Wade teg la fi autoroute bi dikk defal nun li Abdoulaye Wade defoon Abdoulaye Wade fay na ñooñu ba seen xol seddu guy yaa fi nekk léegi fay nu ba sunu xol sedd guyu noo la fi tegoon te itam li nu war a fay ngela yéen ñi diggante bu leen ci baaree dara bu leen lekk dara jox leen sunu alal wasalaamaaleykum. Thank